foo seetaan Dakar midi clic Dakar 221 yaakaar naa nag jëmm ji jàkkaar lool euh, duñ ko présenté Sénégal ak àdduna xam nañ ko macha allah muy Soxna Awa Fall la grande vente nekk fii ci Maris yaakaar naa àdduna travers YouTube bi Dakar midi xam nañ kan mooy Soxna Awa Fall la grande vente loo xam ne lu mu wax rek macha allah yàlla ànd ak moom ci seet euh, kon Awa Fall tey nag dañu ñëw ci loo xam ne actualité la ci réew mi. muy loo xam ne àdduna yëpp ñoo koy préparé muy coupe du monde. Mhm. kon tey coupe du monde bu ñëwee yaakaar naa dañoo war a xool ci ku mel ni Soxna Awa Fall euh, tey mu wax ci li nga xam ne mooy ay saraxam. mu génn ci li nga xam ne tey mooy xam-xamam macha allah. ndax ci réew mi la bokk koo xam ne porteur de voix lu mu wax yaakaar naa incha allah yàlla ànd ak moom. Mhm. Soxna Awa Fall lañ lay bàyyi nga nuyu ñu xuus ci waxtaan bi. waaw maa ngi leen di fay di leen jox seen wàccuwaay daal di la nuyu di la sa wàccuwaay yow sama xaritu bopp nga mhm. di nuyu sama doom ji toog moom tamit maa ngi koy jox wàccuwaayam mhm. di nuyu nag àddina wërngal këpp comme ma koy waxee saa su ne di nuyu nag kilifa aada kilifa diine mhm. ci ñoom ñaan ñu ñaanal ñu ndax di ñaanal seen sit bi nag bëgg naa ñu ñaanal mu jëm ci kanam macha allah di leen jëfal di leen jaajëfal ci seen teewaay ci sama biir kër di nag euh, wax ni yàlla na yàlla euh, fëgg ñi nga xam ne ñoom la seen euh, ñoom ñoo amee ay tawat ci hôpitaux yi

tey muy làmb muy sport lépp loo xam ne euh, macha allah euh, euh, luy xew ci réew mi rek saa su ne dangay génn bu dee sarax yoo war a joxe pour li nga xam ne réew mi am jàmm da koy joxe saa ne te noonu lay demee saa su day nekk tey ñu jëm ci loo xam ne muy nekk ci coupe du monde ñu suñu premier match ñu daal di koy ñàkk ñàkk boo xam ne yaakaar naa du yaafu Sénégal mais yaakaar naa boo xoolee nga xam ne ay mbir la ay sarax la ay mbir yoo xam ne ah muy suñu cosaan muy ay ñaan mm. tey nan nga gisee defet boobu avant tout ñuy gën ci dugg ci deuxième match bi waaw muy lu metti si si xol muy doon loo xam ne lu metteel la aussi ndax yaakaaruñ ko woon yaakaar nañ ne match bi bu match nul lañ gënoon a lañ ci gënoon a xool loolu ci lañ gënoon a gis que que bi ñu ci gis waaye nag li euh, may wax saa su ne ne leen équipe bi dafa am cat am na lu ñu ci def na lu ay xeex yi ci nekk hmm? Sénégal dañu war a bàyyi loolu xeex am na ci ku xool match bi ni mu demee xam na xeex am na ci ndax gars yi ñi gën ñi ci gën a nekk ponkol saa bari na trop ku ci mel ni Sadio Mané ku ci mel ni Sadio Mané ku ci mel ni keneen ki Cheikhou Kouyaté bi ak beneen xale bu góor bi ni mu tudd hmm. am na ci keneen koo xam ne xale bu xarañ la hmm. moom tamit gis ngeen ko gaañu gaañoom yi muy ay cat ak ay def def yoo xam ne def nañ ko ci équipe bi pour la demal suñuy mbir te loolu waru dama yaakaar ne Sénégal benn bopp la kenn waru koo xar ndax yàqante bi bari lool lool lool ku ci gis ni que ah, Aliou Cissé yóbbu na équipe bi eh, eh, équipe euh, nu mu tudd eh, coupe d'Afrique yàlla def mu am ñu li mhm. mu bëgg a ñëwaat coupe du monde war caa mën a amaat yeneen raaya day mhm. am na ñoo xamee mënuñu supporter loolu ay nit ñu soxor lañu ñooy jaar ci suuf di def seen i jëf ju bon am na ki sëriñ boo xam ne ci li may dégg man mhm. ne am na benn sëriñ boo xam ne woo nañ ko pour defloo ko ci lu ju bon pour yàqal ñu suñu équipe pour yàq équipe bi n na waaye kooku bañ ko ko waxee dafa leen carrément du ma ko def Samba Masamba bañ bu ñu demee ca ma demb demba ma demb jël hmm. ndax Sénégal xaalis la ñu bëgg ok hmm. Hmm. nga ne Aliou kon da nga bëgg a wax bu ñu déggee say wax da nga bëgg ne kon ñi nga xam ne ñoo génération Aliou Cissé 2002 tey ñoo yàqal Aliou Cissé parce que woowu leen ci équipe bi loolu nga bëgg a wax exemple. non non no non non pour xam nga dama ne am na ay yàqkat yu nekk ci réew mi. mais ay ay sénégalais xam ay naar ñoo ñëw di yàq. non non non. dafa am ay yàqkat yoo xam ne ci réew mi lañ jóge mhm. nekk ci réew mi ba pare seen xol yaatuwul mhm. seen xol dafa bon mhm. ñoom ñooy def ay yàqu-yàqu ci wàllu équipe bi pour yàq équipe bi ku xool ni affaire bi demee xam ne cat dugg na ci équipe bi moo tax man ba ma defee sama première sortie ñu di ma laaj ci coupe du monde ma ne ba ngeen ma laajee ci coupe d'Afrique dama ne na coupe bi day ñëw dafa naa ne wax naa ko ci seen ci mhm. seen seen sit bii mhm. ma leen coupe bi day ñëw mhm. te dañuy am ndam te ci kanam lañu jëm waaye bii buñ ma woowee dama ne man gisuma coupe parce que gàllankoor yi laa gisoon gàllankoor yi gisoon naa ko waaye nag yàlla mën nañoo dimbali bañ dugg ba huitième final incha allahu rabbi bu nu yàlla dimbali nag bu nu génnee sere comme ko waxee woon yàlla mën na dem ñu dem ba la yem te yàlla a xam nag lu tax lan war a tax ñu dugg quart de la neex waaye bu ñu yàlla waroon def ñu war a toogee ñu toogee ko mhm. ci kàttanu suñu borom dinañ dem ba quart de ok fu ma la bëgg a wax mooy leeral tey da ruux Soxna Awa Fall tey ma lan mais da ruux maanaam da ne am ñu yàq ci biir équipe bi di yàqal Aliou Cissé te yaakaar naa naar bi jóge fee di yàq tey moo tax ma bëggoon leeral ñuy yàq tey exemple ci équipe nationale ñoo xam ne dañoo jege équipe bi la wala ñoo xam ne dañoo nekkoon ak Aliou Cissé di football 2002 te woowu ñu équipe bi ñoom ñu soxare coupe d'Afrique bi a coupe du monde bi moo tax ñu yàqawal foofu la nga loo gis ci àddina am na mbaax am na bon. xam nga da ngay gis quoi man dama bëgg li gis nga wax ko. ne li ma dañ damaa gis que ne yàqu bari na ca. waaw ay yàqu-yàqu nag ay doomi aadama yu am seen i bon. ñoo ci yàqal ko waaw moo tax may la effectivement am na ñoo xam ne bëgguñu El Hadj euh, euh, leer na non non non dama ne am na ci ñoo xam ne bëgguñu Cissé borom maanaam suñu entraîneur bi comment il s'appelle encore. Mm-hmm. faut pas nga may diaboliser il faut faire mm-hmm. doucement avec moi. ok xanaa mm-hmm. nu Aliou Cissé waaw Aliou Cissé ko mu am euh, mu am euh, kii bu mu am. fi mu yëpp euh, suñu équipe. waaw andi coupe d'Afrique am xam ne seen xol neexu ci. neexu ci waaw anduñ ci. dañ cay def nag ay yàqu-yàqu mhm. équipe bi cat da caa dugg mhm. mais nag yàlla buur bu baax la te yàlla na ñëw dimbali nag ba mhm. ñu dem ba quart de finale ndax dem coupe du monde du ay caaxaan ay caaxaan yëpp gis nañ ne macha allah loo waxoon mu am coupe d'Afrique bi wax nga ko ñëw na macha allah gis nañ yàq-yàq itam gis nga ko nii mais tey euh, tey boo doon wax Sénégal ay sarax yoo xam ne tey mën nañ mën nga waxaat ëllëg ne coupe du monde day ñëwaat comme ni nga ko waxee woon yan sarax ngay wax tey génn tey. parce que nañ. leen def juróom-ñaari euh, nag yu nag yi weex tàll nag yi weex tàll yi nag dañ koy rey ci juróom-ñaari tefes yi bokkul fii ci biir Dakar. juróom-ñaari nag yu. juróom-ñaari nag yu weex tàll. loolu xanaa président moo koy génne wala. président wala ñi nga xam ne ay bonne volonté. aajul ci ki ak ca kaa. Ah. loolu nag ay néew di doole lañ koy jox. néew di doole nag yaakaar nañ ne ku taxaw ci mbedd di yalwaan mooy néew di doole am na ñoo xam ne ñu ngi seen i biir kër mhm. nekk seen i biir kër di ay néew di doole te duñu taalal kenn loxo ñoom dañ ko war a jox ñu nag wu ne ñeen fukki taala war a nekk ak benn buñ ko ñeen fukki saam ak benn buñ ko defee ñeen fukki saam ak ak benn ñu jox ko ay néew di doole yu nekk ci biir kër yi tey nekk yor ay njaboot ñu jënd ay fruits yu baree bare jox ko ay tout tànk tout tànk ñoo moom fruits ya buñ ko defee ci kàttanu suñu borom yàlla dinañu may ndam ba ci suba suñu fubalu suba àllarba ji incha allahu rabbi nañu def ay fruits jox ko ay tuut tànk ñoo ko moom buñ ko defee incha allahu rabbi dinañ jël raw gàddu gi maanaam dinañ gañe suba incha allahu rabbi maanaam fruit mooy tax nañ gagné suba mais coupe bi suba nañu génnee fruit ñu joxe ko sarax jox ko ay tout tànk bu ñu mën a ci daara yi ñu joxe ko buñ ko mënul def ñu jëm fexe jox ko ay tout tànk ñu xamul dara mhm. ñoom ñoom moom fruit yooyu mhm. su ko defee incha allah rabbi suba dinañ gagné coupe eh, eh, dinañ gagné match bi dañuy ci Qatar borom incha allah rabbi ba léegi euh, euh, wallaahi dajagul buñ defee sarax boobu ku koy nekk bonne volonté génnal nga dem def sarax bi kon man mi mën naa génn ay fruit yow bu la neexee defal dee ñaari pomme wala ñaari doonte ñaari kilo pomme la wala doonte kilo yi pomme ak kulay orange ak banaana nga boole ko jox ko ay tuur tànk bu loolu amee yàlla dina defal jàmm mhm. incha allah kon euh, wax nga ci blessure Sadio Mané ak Cheikhou Kouyaté kon da nga gis ne ay def def la daal ay def def daf cay am lu leer laa lay wax barki Seydina Mohamed dañ ko cee def pour yàqal leen pour yàq équipe bi jël équipe bi lëndëmal ko gis naa Sadio Mané ci gént mu nekki fu nekk bu lëndëm lëndëm kiris ay picc ko génn ca biir ca biir lëndëm lëndëm ba li ko indi nag mooy mbaax gi mu amee ak wa nit yu baax yi muy teral loolu la ko yàlla fayee moo tax mu génn ca fañ ko dugaloon mais saaja maana tànkam bi dafa rax ku ko xool xam na rax na li lay won ne affaire bi rax na bi ñu footballee ci fa match bii passé gis ngeen ni mu fa demee gaañu gaañu yi bari nañu torop te loolu musul woon am dëgg du neex gars yi xale yi la lañu xale yi am volonté lañu nañu bàyyi xale yi ñu fëbal ñu bàyyi yàq bi man lii laa wax Sénégal suñu réew la kenn mënu koo xar ñaar mm-hmm. nañu bàyyi yàqante bi mm-hmm. nañu bàyyi yàqante bi nit génn na taxaw ci karamba wax ci karamba lu bon pourtant karamba volon bonne volonté la mm-hmm. pourtant bonne volonté ah, la kon yow ànd karamba ci mais bien sûr nit du yà du dañu wax ne dëgg nit du égoïste <laughs> ah. dëgg neexul yàlla mm-hmm. dëgg rek la bëgg mm-hmm. parce que Ramba ku ne xam nga ne volonté la am ci senegal mm-hmm. bëggal na réew mi jàmm dëgg neexul sëñ Mara Niass dañ koy xas ay pourtant bëggal na réew mi jàmm bëgg na suñu suñu askan bi jàmm taalibay Sëriñ Tuubaa la xamul lépp mais dëkk bi dafa day fa dafa nekk dëkk bu day waar kenn mënu fay am jàmm nañu bàyyi loolu ku nekk am na ku la loola yàlla may yàllaay mayaan sëñ yàllaay maye mooy xool ku ko neex mu may ko ko mooy xool ku ko neex mu may ko nañu bàyyi yàqamte bi yàllaay maye te ku ko neex lay may. il faut pas être il faut pas être égoïste. Mm-hmm. ku ne na nga nangul nit ki li ko yàlla may. Mm-hmm. da nga gis ko ñeme yàlla loolu taxaw di fukki dërëm naan maa fi nekk maay king maay nangam. kuy mm-hmm. ki king yàllaa ko xam. nit ki mën naa ma ñemen dara yàlla def ko muy wàllu lu mu la jox ci suuf bu tëbbi suuf jox la yàlla def ci barke. kon bu kenn xebal kenn di ko yàlla may. waaw sarax yi nga xam ne moom la ñuy génn yaakaar ne yeneen voyante yi sa morom voyante yi wax naan génneel sarax génneel sarax est-ce que ànd ak ñoom sarax yi ba a saraxu ndel moom sëñ bi li ma koy waxee saa su ne je ne pas d'accord avec elle moom nag moom ça n'engage que elle parce que moo ko wax man man sama faal man faal man du ma ko joxe ci kër àddina duma watu samay doom duñu watu ma samay doom duñu watu loolu yenn fuite de responsabilité la c'est pas normal daa contre naa li mu wax dëgg neexul Selbé Ndom mi ne bu ñu koy boo mu andi coupe moom ñaan nañu koy yóbbu Qatar rek loolu ça n'engage que elle man wootewu ma néew ma ma Qatar waaw ko wala comme ni nga mhm. dafa wax li mu bëgg kooku bëgg-bëggam la wax mhm. loolu aw ma ma ciy wax mhm. waaye kii ne saraxu ndel je ne d'accord avec elle mais kii ne yóbbu leen ma Qatar su nga ma yóbbu ma indi équipe bi amee ah, leen ko Mhm. su indiwul équipe bi nag ma xam ne nag lu mu ci góobe gar mhm. dëgg neexul mhm. su indiwul équipe eh, su indiwul coupe bi fii lu mu ci góobe gar nag ku ne xam nga ne Sénégal dëkkub wax la dëkkub dëkkub wax la dëkkub riir la bu ko bu ko bi nga ko ci mayee riir ba ba ba ne kecc soo lëggee dutu ko defati loolu sama yoon nekku ci sa nangaas ka elle waaye li ma wax moo ci nekk man saraxundel je ne suis pas d'accord avec elle elle a pas elle am na nag plein droit génn nangam laay wax parce que fii léew réew réewum kii la euh, euh, nu mu tudd te ni ñu koy waxee Sénégal la ñu nekk te ku ne ku ne am nga sañ-sañ wax lu la neex bu ko neexee mu wax ko waaye man gis gisuma del man li ma gis juróom-ñaari nen ay eh, juróom-ñaari nag yu weex taal laa gis mhm, mhm. ak i fir wi waaw loolu nga gis yow mais exemple nangul ko laa exemple na ba ne exemple nangul ko xam nga yow li nga wax noonu boo ko bu ko keneen déggee mën na sarxe wala moom mu dégg ko sarxe ne ah soxna a Fall kat wax na li dañ ko sarxe mais yow exemple nangu woone loolu mooy saraxu Sénégal hmm. ndel yi nangu ma ko ok ñu jóge foofu ok ma ok ñu jóge foofu euh, léegi tey euh, ñu gis ne macha allah yaakaar naa kon loolu amoon ci euh, li nga xam ne actualité match bi xam naa bu gënee rek incha allah dañ fi ñëwaat bu après passé ñëwaat bi ñu gis beneen actualité tey boo xam ne mënoon rëmbaleew wax jumaa yi dañ koy war a tëddale li nga xam ne mooy protect ak comme ni ñuy tëddalee li nga xam ne mooy xaalis yore mbuus si xaalis ci jumaa yi dañ ko war a tëddale ay protect jox ko kenn ku nekk fa nga fa nga juleen jox la protect yi mu polémique lu bëri waa Jamra plainte ko mu am trois plainte ba tey euh, oh, ko garde à mhm. euh, loolu tey. en tant que jullit ah, mais ku koy salteel mhm. Cheikh Ahmed Cissé suma nit internet bi mais am na loo xam ne jekkul jaaduwul waaw diina kenn du ko salteel diina gi ko war a sellal te ku ne xam nga seen taxawaay ci ci dëkk bi jakk taxawaay bu rafet ndax bëgg ñu kenn kuy salteel suñu diine bi ñun ama ngi dul Seydina Muhammad ama ngi dul ko a salteel def nekk su noonu gars war nañu war a def ci yow daf la sanctionné la mm-hmm. c'est pas normal mm-hmm. je pas d'accord avec lui dafa am yoo xam ne dafa ëpp du mën lépp def lépp baaxul mhm. te day am na wax am na kàddu yoo xam ne nit waru ko wax mhm. te ngay julit nga ne yow julit nga mhm. moom nag moo xam anam anam ba mu ko waxee moom ñun xamuñu ko ndax ñun sénégalais xamuñu loolu moom moo ko xam mais li mu ko waxee ak ni mu ko jëfee rafetul kon nag waa Jamra dañu def man def je suis très content avec eux je suis content avec eux parce que diine kenn du ko fooye diine suñ borom ji kenn du ko fooye ku la fekk ay nga naan jumaa yi nañu def ay protect xanaa ko loolu mooy dem leen ngeen mooy te yàlla yàlla yàlla de mooy yàlla baaxul yàlla ko ci alxuraan te exu yàlla amul avancé. Mhm. moo tax nag lu mu ko ci lu mu ci góobe gar lu ci góobe gar avant muy wax loolu sax yaakaar naa gis ne day génn di wax au lieu que mu wax sexe mais day wax lu garaaw mooy tëdd wax wax yoo xam ne daal vraiment euh, diina rafetlu ko benn yoon yow nga ne da ngay waxtaan ak moom ci euh, internet beeg yooyu est-ce que kooku noonu war nga waxtaan ak moom parce génn diine waaw parce moom bu ma duggee dama ko naan del sellal wax ji parce que yow taalibé Baay Ñas ñëpp xamal la ci baa ci waa ci waa kër Baye Niass ngay toog di di tagg di tagg di tagg waa kër Baye Niass yi ngay jàng di zikar kon am na leneen lu war ci sa ci sa gémmiñ lu li nga ni ngay kàddu yi ngay waxee mm-hmm. mu ne moom nit ñee amul dégg-dégg ci ni muy waxee waaye moom waxeewu ko ci dara mm-hmm. na ko waxee ci wàllu diine lu mu koy ak moom na mu jàngee mm-hmm. ak ni mu jàngee xiska ak ni mu jàngee xam noonu la koy waxee ma ne ko waaye Sénégal euh, dañoo tolluwul ci noonu Sénégal dafa am nooy waxeek ñoom am na nooy waxee ñoom ba jot la ñu bëgg li nga bëgg ci ñoom kër ngay wax wax bu ñaaw am na loo xam ne rafatul nay dox ay nañ jël ay capote di ko joxe ci ay juma mm-hmm. loolu du du du du teggin mm-hmm. loolu du teggin mm-hmm. ñun ñun ñun ñun defar luñ ko te lu ñu ñaawlu la lu ñu ñaawlu la dëgg yàlla loolu dañ ko ñaawlu parce que ñun dañoo am suñuy mbokk ay islamo chrétien ñoo may mbokk mhm. chrétiens yi sunuñ mbokk lañu mhm. kenn déggu leen ci dara mhm. ci lu ñaaw déggu leen ci kenn déggu leen ci lu ñaaw kon nag seen jullit war na mën a góorgóorlu ba kenn di war ko dégg ci lu ñaaw loolu rek war na tax ñëpp dal di di xam li ñuy wax bu baax a baax dañu am ay nawle doo leen dégg ci musiba doo leen dégg ci musiba ak balaa doo leen dégg ci lu bare baree baree baree bare mais pourquoi jullit yi ñoom fa ñu toll seen seen seen i diine ñu mbubboo diine bi di fooye diine bi ku ko ci def ren ba déwén te gisuloo ko billaahi wallaahi ma baa alxuraan yàlla du foo du foowu kaay de yàlla du fowukaay de mhm. te yàlla nag ah mag la moo xam ne bëggul kenn ku koy fooye mhm. nañu arrêté loolu nag mhm. ñu gis ne dara lii teñ bi la yéen bi ñëwagul na ti boppam dana woon kenn mënulu ko dara teñ mu ngi nekk garde à yàlla kenn du ko fooye kenn mënu ko jàpp yàlla kenn du ko fooye yàlla du doomu aadama du nit du ma jéglu benn yoon billaay yàlla kenn du ko foye fooye nañu bàyyi loolu nañu rafetal diina ji nañu respecté suñu magu diina yi dañ leen jox cër bay Niass nekk na fi ba ni mu fi jógee mhm. ku ne xam gis nga luy Baye Niass liggéey mhm. Serigne Touba nekk na fi ba ni mu fi jógee ku ne gis nga Serigne Touba li ko yàlla defal mhm. ku ne gis nga ay taxawaayam te aka metti woon balak maaram aka metti woon nañu respecté magu diine yi nañ leen respecté mam alaaji Malick ku ne gis nga ko xaq borom xaq bi xaq mm-hmm. nañu respecté magu diine yi mm-hmm. c'est très important nit booy wax da ngay xool li ngay wax man daal dama yaakaar ne li ma daan wax saa su ne aqaru jamaan la ñu nekk mm-hmm. nit nit ñi léegi ñu baax day laal lu wax lu baax da amatul valeur léegi loo seet loolu bon rek moo am valeur balaa ngay mën a seetaan ci ci youtube bi nga gis ni ku ñëw saaga ay ndey balaa ngay mën a seetaan ci youtube bi nga gis kuy xaqay kuy kuy kuy kuy yàqante ay nit yàqante ay nit ñu ne daw leen ñu seetaan ko ah ñi nga yàqante ak di wante ay sutura axaru jamaan la ñu nekk nag moo waral loolu yal na yàlla musal ñu yàlla aar ñu làq ñu fa làq yéegul terewul nag fa loxoon ndox doon taa tey ma nga fay mhm. na yàlla defal mhm. suñu euh, bi sant yàlla julli ci Seydina Mohamed mhm. di ñaanal suñu équipe bi yàlla def ci jàmm mooy Sénégal na leen yàlla defal jàmm ñoom xale yooyu yàlla lafa leen cat te suñu match suba bi yal nañ ci yàlla may ndam ci daraje Seydina Mohamed euh, sallallahu taala wa sallam na ñu tàppee xol yàlla def ñu juboo nekk benn benn bopp ndax euh, Sénégal benn bopp la comme ni koy waxee saa su ne kenn mënu mm-hmm. kon nañu bokk booloo ndek bokk ndey bokk baay su ko defee lu ñu xàcc rek yàlla daf ci jàmm incha allahu rabbi jërë ngeen jëf mbokk allah li amoon tey ak soxna Awa Fall yaakaar naa ne actualité boo xam ne actualité mondial bi la mm-hmm. allah kon euh, ñu leen rek euh, ba beneen yoon jërë ngeen